Si ñu nous cible solo na non on s'en fout la vérité est affaire aji voire affaire sud Beauté un côté du nous Est-ce que nous, Sénégal atte en mars 2021 en personne atte à travers ses audios donc dama vous nous sommes affaire parce que aussi bu ñu lu mu nous nous mu day fekk nag ñu taxaw ñu taxaw ñun ñëpp comme un seul homme ñun ñëpp ñu taxaw comme un seul homme def bouclier autour de ce projet waye def bouclier autour de celui qui incarne ce projet Moussa Songo. oui on doit rester debout comme un seul homme et faire face ceci dit kenn ku nekk ci ñun aussi nombre que nous sommes suñu constitution nous la boo nekkee ci nooteel sa devoir la nga résister ñun nag waa Pastef gëm sa projet dañoo nekk ci nooteel Sénégal dafa nekk ci nooteel et on est prêt à may wax ni am na benn projet bo xamanteni parti bi da ko décliné ko wor ndomba ñu ko frère le coordinateur de Passef Dakar Mor Bousso mi le président ko dénk ko projet bi ak ñu ko le projet wor ndomba projet a fu ndaw ci Sénégal âge de voter en 2024 bu fekkante amulo carte d'identité nous faisons ba nga am ko bu am nga ko carte électeur ñu fexe ba nga am ko am carte d'identité am carte électeur waaye ñu bind ne pas pas voter ñu fexe ba nga voter le vote utile donc c'est le recensement de tous les primo-votants fépp fu ñu mënta ci Sénégal fexe ba ñu voter ci ñoom massivement ndax gëm nañu ni ndaw ñi projet bi la